macha allah euh, tey nag gis nga ginnaaw depuis suba ba tey maa ngi fi nga xam ne moo nekk Mbàkke macha allah ba tey euh, ñibbeeku ma euh, nee naa la balaa may dem tamit ah lu leer tamit moo a fi jëlee mais dafa boo xam ne dama ko seet si muy kan maire Anta Yaay këram laa jëm mais bëgg naa tamit ah ñu naan nit balaa nga ko xam da ngay dem ci ay dëkkandoom ma ñëw taxaw ki nga xam ne macha allah mu nekk dëkkandoom bëgg naa moo xam tamit ci maire bi tuuti sëñ bi naa la. maa ngi lay fay. naa def maa yéen si jàmm. ñu si jàmm bu euh, tey soo ma loon wax si maire bi maanaam tey euh, tey lan nga wax ci moom muy maire euh, Anta Yaay. maire Anta Yaay waaw maire moom xanaa dañ ci dañ ci wax tuuti rek parce que li ñuy wax ci moom ci baaxam buñ ko def fii ba suba du jeex donc maanaam ñu jëm cee wax rek ndax maire la boo xam ne nii ñun dañuy judd fekk ko ci koñ bi donc mu yar ñu ñu màggandoog moom ci koñ bi donc mu yaayu ñëpp itam. waaw yor ñëpp yërëm ñëpp àllam du ko boole kenn képp koo xam ne nii tey nekk nga ci koñ bi yaa xam ngay mag ngay ndaw lépp loo xewle Mère Anta Ndiaye moo ci jiitu moo ci mujj moo xam muy xew baneex moo xam muy xew naxar donc ku mel noonu nag maanaam vraiment euh, li ñuy def mooy dañ koy ñaanal rek waaw dañ koy ñaanal yàlla yàggal ko fi itam lu mu man ren bu ne mu mën lu ko ëpp ko waaw Anta Ndiaye de li ma xam ci moom mooy baax ndax kër jooju du ma fa jóg chaque jour maa baaxaaya moom foo ko natt rek weesu na foofu waaw ku am taalibe la te ndey ji seex la quoi ñëpp la boole waaw loolu laa xam ci Anta Yaay bu baax a baax. salaamaaleykum waa El Vision tey nag li tax ma jël micro ci si sa Dieyna mooy que ni dama leen indi foo xamante ni muy Anta Yaay Mbengue koo xamante ni moom c'est spécial parce que jigéen la te jëy jigéen ju man góor. Ah, ñu war ko sargal nag ci journée mondiale de la femme bi le 8 mu nekk jigéen ju jàmbaare di def social ci dëkk bi di dimbali néew ju doole yi te dooleem sax matewu ko ma bëggoon tuuti yéen waa El Vision ngeen topp mu mu dugg ci biir njolli mbaar mbëfër wooy ko ci Cheikh Ibrahima Fall mi tax muy def lu baax loolu bu ko defee delloo leen seen antenne ngeen waxtaan ak moom loolu laa bëggoon. bay sa biigee Kumba Fall daa maam Seynabu Njaay anta mam farma yaasin daawur mi ci mbul jooja ko du faali njaay bu ëllëgee Seex Ibra mooy dimbali jaam ñe waaw waaw anta yaaye mbeng mbooroy jigéen ju man xanaa xamuloo ku def lu baax am lu baax ku def leneen gis leneen anta yaay mbengo yaayu xale yaa ngi fariwale ñaala gay naa jele antaya jële anta yaay tey laa lay lamb lambe da ngay jigen di def lu bax da ngay jigen di yaay fal bëgg mam Cheikh Ibrahima fal Amad fal Seer Njaay Birante be maca ngaay béy naaru degen fal mam Farma Yaasin Daawur métier mbol jooja koddu Faali Njaay anta yaay ci rew mi la juddo ci rew mi la yaro di def lu baax ci réew mi di wax lu baax ci réew mi va El Vision tey indil naa leen gan. macha allah comme ni ma leen ko waxee woon rek ah euh, mbaax rek moo am solo comme ni ñu ko waxee woon ci mbedd mi comme ni ko waa mbedd mi di waxee comme lu ñu seedal suñu yaay ji macha allah euh, dama koy daal di jox sama micro rek mu daal di ñëw mu daal di ñëw ak moom samay question yaay booy nuyu naa la. fay naa la sama doom na nga def. Euh, yaay tey waa El média Médias ñëw seesi la tey sa càmmin sa xarit ñëw seesi la muy Dame Xàll Eh, yaay tey ana lan nga yëg si sa yaram xanaa kontaan rek ci sama doom ji góor ji xalaat ma ci ndemba góor maa ñoxor kod lambaay may sant nag sama dom ji góor ju ji di sant sama doom ji fi di sama doomu nijaay di sant waa Mbàkke rek ndax xam naa yéen nit moom soo koi yaa baax rek xama mom moom baaxul yéen a baax may sant waa Mbàkke gépp nag ndax man Mbàkke gep ma bëgg Mbàkke gépp a di sant sama ñaari waajur sant sama borom kër di sant yàlla nag ndax xam naa ni nit ñi kuñ teg loxo nga dem xam naa ñoom ñi teg nañ ma loxo muy naar Guèye di sama doomu nijaay ji yal na leen yàlla loxol xol di la sant yow it di sant caméraman bi macha allah yéen a ko déggandoo baat bi benn la yaay booy ñu daal di am question yoo xam ne dañ ko jëlee si mbedd mi lépp rek muy benn baat ñëpp naan euh, dafa baax dafa baax macha allah ngay def ay ay joloore yoo xam ne macha allah nga yëkkati li nga xam ne sa alal euh, nga koy def manam ci weeru koor yi nga koy jox ñi nga xam ne macha allah mooy du doole yi nga leen di dimbali pourquoi pas tamit mënu woon jël xaalisam dem toog saraanoo mënoon na ko di baatara wala muy def naka suru noonu muy dimbali li nga xam ne mooy yi macha allah yaay euh, loolu noonu lan moo la si poussé ba nga def xanaa judd fekk sama baay di ko def man ku xam sama baay xam ne ci teral doomu aadama la dëkk ku xam sama yaay xam ne ci teral doomu aadama la dëkk soo demee Grand Médine géem a dëkk foo laajte alaaj Cheikh Mbengue ñu won la ko foo laajte Issa Mbaye ñu won ko li tax ma man ko nag damaa dikk Mbàkke waa Mbàkke téye ma loola tax ma di ko def waaw waaw bu ñu jógee foofu dañuy dem ci dàmbaay xaal comme ni nga ko waxee léegi euh, muy sargal jigéen le 8 mars mu jël lépp rek daal di koy teg sa loxo euh, yaay bay tey doo moroom wax si dàmbaay xaal ana lan nga may wax si moom xanaa baax bëgg Mbàkke man a woy gëm lépp li muy def nag daam mbaay doo ko gis ci affaire taxawaalu doo ko gis ci affaire caaxaan daam liggéey rek la xam liggéey ak daan doole am ful la nag ci boppam loolu laa xam ci daam lool nag taalaa biir euh, lan ngay wax ci 8 mars bi nga xam ne da koy sargal sa mbokku jigéen yi mun naa ne jigéen boo waxee jigéen rek euh, tënk na jigéen ñëpp boole na sa jigéen ñëpp am na leen nga yëg ci loolu. xanaa ci kontaan rek di ci kontaan rek nga xam ne jigéen moom loo ko defar rek defaloo ko kenn sa bopp nga ko defar mm-hmm. waaw ñuy ñaan yàlla nag bis yàlla egg jàmm. dañ fekk ko ak may sant nag déggoo li ma la wax toujours su may sant may sant naar kay ndax xam nga lu ma ma sa wax ku la bëgg laa ku fonk la ku am fu ma la teg la lii su amee rek damay xam ni moom la waaw daam mbaay nii laa ko xamee baax yaatu yaru waaw loolu laay sant macha allah yéen a ko déggandoo waa El Vision baat bi benn la comme ni ko waa mbedd mi waxee moom noonu la ko waxee euh, lan ngay tàggatoo sa mbokku jigéen ñi nga nekk jigéen ju am jom nga nekk jigéen ju gëm sa bopp nga nekk jigéen ju gëm liggéey nga nekk jigéen joo xam ne maanaam lu mu yor rek da koy bokk ak doomu aadama yi naa nga ñëw sa mbokku jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan euh, nga daal di tàggatoo. sama mbokku jigéen li ma bëgg ñu di ko def def ne man xam nga lu ma bañ mooy yàlla ak sàcc waaye bépp liggéey bu ma gis dinaa ci dem man dóor waa rek laa xam ak liggéey waaw ma bëgg sama mbokk jigéen yëpp nag ñu mel ne man tax nangoo liggéey ba ñu ma dara ndax man toggkat la waaw damay jaay cuuraay damay togg xale yi bëgg na ñoom ak ñi bëgg nañ ma te xale yi mbàkke yi ma tax ma def loolu ndax ñoo ma bëgg man bi ma ne ñëwee mbàkke damaa am problème damaa sonnoon waaye xale yi mbàkke ci boppam ñoo ma dar moo tax bëggatumaa dellu foofu ma dëkkoon may sant xale yi mbàkke nag yàlla na leen yàlla fay di sant sama waa kër gi nag ndax fu ma jëm ñoo ma waaw ndax fu ma nekk sama fu may dem dama fi bàyyi samay doom bàyyi samay njub ak samay waa di ko téye samay wujj ak samay peccor ak samay goro di sant sama borom kër bi nga xam moo moo bàyyi nag ba man ba man lii ma man nag ma di ko na fanam gudd waaw moom ba ko sunu borom sargalee dafa yàgg ndax jigéen bari na loo xamante ne bii nii moom moom yàllaa ko jëkk sargal ndax jigéen moo jëkk ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa bari na tey jii te gi ñuy màggal muy maam jaara bu so jigéen la kon jigéen biram yaasin buub jigéen la woon Aline Sitoé Diatta bi ñuy wax ci Casamance jigéen la woon kon jigéen kay moom moo xamatul lu mu doon waaye jigéen moom sunu borom teral na ko bien avant que euh, affaire gouvernement bi di ci dugg ndax euh, jigéen moom yàlla teral na ko bu yàgg loolu lal mooy mooy li ci xam waaw.